salut chers internautes et amis de Sénégal 7 asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne yéen saxoo di ñu suivre à travers cette chaîne bi di Sénégal set mbégte la ñuy am nag sa su ne bu ñu waree jàkkaarloo ki yéen mais mbégte la ñuy am aussi bu ñuy dem di leen xoolal seen daan yi nga xam ne ñoo nekk suñu réew tey ñu am mbégte jàkkaarloo koo xamante ne kenn dootu ko présenté waa Sénégal ah kooku du kenn ku dul la grande voyante ajaratu euh, soxna Aida Saliou mu. mu sëriñ Saliou ak mu Waly Seck yaay Waly Seck <laughs> niñ def lu nuyu ko bàyyi ko nuyoog internet yi balaa ñu tàmbale maman Aida ñoo leen nuyu. waaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi alaatu wasalaam di ñaanal askanu senegal àdduna wërngël képp waaye di ñaanal kilifa diini ak kilifa aada. waaye di nuyu sama buntu ci kër sëñ Touba. muy sëriñ Mountakha Bassir. waaye noonu lay duggee ñaanal sama sang bu tedd ba sëriñ Saliou yal na yàlla yokk ay leeram. ñaanal ko Cheikh Béthio Thioune. Mhm. ñaanal ko képp koo xam ne rek way dawlo nga. Mhm. waaw di ñaanal ñëpp rek sama mag ja ki ne Diouf jaaga sama waajur amital ñoom ñëpp daal maa ngi ñaanal ñëpp. Mhm. waaw képp ku tëdd barsàq rek maa ngi lay mhm. ñaanal yàlla nga daje ngërëmal yàlla sunu borom. amiin amiin waaw di ñaanal ñi fi des yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi. Mm-hmm. am wér am tal bu baax a baax a baax. amiin macha allah nee na sama doom Wally mm-hmm. mooy Sénégal. mooy àdduna wërngal képp <laughs> maman national. macha allah ah, maman Aida ñu wax la nag bonne fête na sax mais ba tey ñu ne la. bonne fête des mères ba la parce que weer bi moom bu ñu nee fête rek moom weer bi yëpp fête la. dëgg la surtout maag feetu yaay. Mm-hmm. waaw di kontaan rek waaye di kontaan ci sama. démb sama doom Wally mhm. Ballago Seck ak soxnaam ak mhm. ñëpp rek mhm. waaw xam nga buñ ne fête des mères rek képp ku am ay doom ak njaboot da xam ne yëg nga ko ndax ay waajur la ñu fi des. Mhm. waajur yi dem defuñu yàlla tax ñu jóge fi. ñu nit defaluñu yàlla li tax mu bañu fi. Mhm. ba tax dañuy sant rek di ñaan yàlla yàlla taxawaay yàgg. Mhm. ba ñu mën a taxawu njaboot gi. njaboot gi it wax dëgg yàlla ñu ngi ñuy jox li ñu yar li ñu yelloo ñu ngi ñu koy jox bu baax. ñu ngi ñuy taxawu démb gis nañ suñu bopp ci fête des mères. ci suñu njaboot suñuy goro ñoom ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp. yàlla defal leen jàmm taxawu leen sàmm leen. ah xëy nag wax dëgg yàlla ay am ay surprise yoo xam ne. Hmm? wax dëgg yàlla fête des mères moom xuma ku santul. Hmm. waaye soxna Aida Saliou moom wax dëgg yàlla. Hmm. ah ku sa goro joxul ndékki da yaa xam may man moom sama doom ak samay goro jox nañ ma ndékki. macha allah macha allah. yàlla na yàlla yokk xéwal gi indi na la waaw indi na. ah soxna dara am dakkul. waaw da daan defal jaaga di ma defal. waaw moom daraam daraam daraam dakkut. waaw. dara am ndax ku ñaanal ko rek mu gudd fan yàgg jamono. mu góor góorlu jàmbaar la. ndeysaan waaw moom yaay la. ndeysaan macha allah. moom rek dañ ko waroon a wax ne ko fête des mères ñun dañ ko waroon yóbbul. Mm-hmm. taraanga ndax na wax dëgg yàlla de macha allah jigéen ju révérence ci ndaw léegi. xale yi léegi yii ñoom ñëpp li may wax ne man dama koo jox roi des femmes. waaw daaw wax naa la ko ne naa la roi des femmes. moom laa ko jox reine des femmes ak roi des femmes yëpp kay moo ko war a jël. parce que góorgóorlu gi ak jom ji ak fulla gi. Mhm. say jom la. Mhm. say jom la. Mhm. te moom dafa sëy. ak ah, góor gu jàmbaar la macha allah. xale yi nañu roy ci moom. sëy lu bari. sëy lu baree baree baree bari. waxul dara sëy lu bari te waxul dara sëy yi xew ci jamono boo ko xoolee xool ko moom mm-hmm. nga war a xam ne na wax dëgg yàlla nag grande dame la mm-hmm. mais lan moo ko may force boobu jom jom jom eh, jom doomu jàmbur ñu ñi di mag sax jom lañuy ñuy sëyi sëy mënoo sëy góorgóorlu ci sëy te amoo jom ëmb sax jom a koy def accouchement sax jom a koy def dem sa ñëw taal yàq fuur raxas bale uuf sa njaboot sang leen ba nu set ba ku leen xool naw leen sa jom la mm-hmm. ah, jom mooy protéger loolu yëpp ci nit. Mm-hmm. na nga gisee léegi sëyu xale yi waaw xam nga xale yi dañuy ni mu leen neexee waaw sëy yi dafa manqué communication te kilifa yi dañ cee maandu waaye boo amee goro bu baax bu toog sëy nga ñëw def ko yaay mu nga mat mu nga def ko nday ju mat nday mhm. moom dalay def doom ju mat doom mhm. dalay gunge ci sa sëy ba doo wéet dëgg la mais léegi xale yi dañuy cof goro cof goro mooy la cof goro hmm. ah mooy su ma xëyee nuyu la ci téléphone su ma paree pare naa ci maa ngi ci sama appartement kaay añ ñëwul kaay reer ñëwul kaay ndékki ñëwut mais gisoo ne euh, yaakaaroon ne loolu dafa am lu ko waral non xale yi dañ ne technologique bi moo Euh, environnement bi moo changé. Mhm. mais sëy fa mu daan nekk ba léegi la nekk. Mhm. mooy muñ gi ngor gi jom gi sutura si. Mhm. sutura si di may liir ci yenn sëy yi dama ko liiru ci yenn sëy yi sëy dafay ànd ak sutura doomu jàmbur ñun tey li ñu ba ci suñu sëy yi malgré ñi ngi ci dund amut luy xëy xëy rek neex ba faawu déedéet. day am ay rëkk-rëkk. am ay metti metti am ay difficulté mais yenn saa nga dund loo xam ne sax doo bëgg sa yaay yëg ko doo bëgg sa yaay yëg ko doo bëgg sa doom yëg ko da ngay dund sax ba am doom ju mag nga dund ci néegu sëy bi loo xam ne doo bëgg sa doom yëg ko hmm? waaw waaw bu ko bu mu metti ko dem ba sëy ba nekk mag am ay doom mag après nga dund lu metti ci sa biir sëy barke yonent yàlla Muhammad amul koo xam ne yaa ngi nekk ci sëy def ci dix ans wala onze ans te dundoo ci ay metti metti parce que say jom la soxla yëpp mënut a daj ci say bëgg-bëgg yëpp mënut a daj ci say te dañ ne boo sëyee ni mu la neexee jure fan lala la neexut moo tax hmm. da ngay forcer yenn saa nga mbedd mi yenn doom yoo xam ne sax da ngay xam ne ñi seen yaay sëy nañ bay bëgg a dee waaye boo xoolee tey bu baaxee ñu ne doom ja say sa yaay a baax hmm. waaye boo bonee it ñu ne doom ja nday ja loolu lépp jigéen mooy base bi kon looloo tax jigéen dafa war a sëy ba dee. Mhm. sëy yi léegi nag xale yi dañuy indi benn tànk teg benn tànk ci biti ndax mënuñu muñ diiran bi ku muñ weer ñaari weer ne sonn nga. Mhm. man bu ma demee ba dégg sëy bi am un an deux ans boroom naan li ma daj ak li ma fa daj ak li ma fa def ak li ma fa daj kon man ñun borom 30 ans yeeg kii xamul ñun nu ñu war a def ñun. Mhm. waaw ñun borom vingt nangam temps yeeg borom trente ans dugg ci sëy euh, nan nga gisee problème mu Mario ak Ndaxte. boobu dañoo déggagum benn lay du pàq. comment te boo nekkee mag doo gaaw a dugg ci yenn yi. Mhm. waaye sax. maanaam benn version ngeen waaw benn version rek la Sénégalais yi dégg. Mhm. coow li bari. ma yaakaar ni dañoo war a dégluwaat suñu doom ju góor ndax suñu doom ju jigéen daa wax li ko naqari mm-hmm. ñu war a déglu suñu doom ju góor lan moo ko naqari mm-hmm. waaye luñ ko déglu déglu déglu benn conseil rek la mooy dóore mooy mujj ci sëy mm-hmm. sëy boo demee ba dóore nar ca am jëlal liñ la joxoon nga delloo ay mbokkam mooy gën a sedd ndax dóore faju ci dara sëy bu demee ba am dóorante am yenn yi dafay commencé ñaaw waaye dóorante bi lan la parce que ñoom ñëpp ay xale lañu parce que bu fekkee ne xale bu ndaw ku góor ki bëgg yaayam nga bëgg sa yaay mm-hmm. ak xale yi léegi ñu nabee ci waajur gu jigéen dem ba bëgg a jël jëkkëram ne ko sama kàddu mooy dox yow sa kàddu du dox tamit il faut ñu seetaat ko waaw ndax euh, sa jëkkër mënul bu waxee benn nga wax ko fukk mm-hmm. moom mooy mujj noppi waaye yow doon noppi mm-hmm. euh, say daawul demee noonu jëkkër kilifa la mm-hmm. jëkkër sang la mm-hmm. te tey di nga dem ak sa jëkkër foo xam ne yar yi eggagul yenn âge ndax da ngay am 17 ans ñu may la ko am 20 ans wala 22 ans mm-hmm. li muy tuut tuuti yëpp sa kilifa la ci déggin waaye li muy tuut tuuti yëpp mooy yéen ñaar yéen yam xel kon faw yi fi xale am fa waaye faw mag ña jàpp ci boo amee lu la naqar yi nga daw wax sa yaay diw de daf maa def lii mm-hmm. sa yaay woo kooku mën naa murus ko ndax nee nañ nag lu feeñ ci sëy nuyoo na ca ngoro ga dañ koo fayut mm-hmm. waaye léegi sëy yi dafa bari ay lu ci xew ma tiit ci loolu mooy lan mooy monot yi monot yi lan mooy xale yi ñuy jënd di ko sëyee ay monot ah. xam nga ni ponkalum góor nga teg ko ay tànk takki loxo monate ko jëndaale sab xiir naan ay lool ci powum sëy la bokk dóore bi looloo tax mu bari looy ree mais xale yi di wut seen monot pour neexal seen sëy monot yooyu monot mooy indi waaw ponkalum góor nga monote ko jëndub xiir teg ca naan fij loolu mooy neexal sëy léegi nga ne loolu moo indi dóore loolu moo dóorekat yi doomu dóorekat yëpp looloo ko indi ah. sa baay ñu fanaane ko dóor ba bés set takki loxoom ah seetal li ma la wax rek jàngataat ko ba xam mais sorti ndaxte bi d'accord nga si wala d'accord aussi. d'accord ma. lu tax d'accord aussi. nit du génn viam daa waroon a bàyyi ba am fa doom mënoon na ko dund mu nekk du du lépp ngay génne. parce que boo amul kuy dund ci àdduna te amoo loo mën a wax lu la yàqal. amul lu waay mën a def ci àdduna te munoo wax lu la yàqal. wax ñaar rek la lu la defaral wala lu la yàqal. te pencum réseaux sociaux. dafa am lu war a génn am lu war te génn te say sutura da caa am ndax boo dee xalaat bu ñu lay muur kenn muuru la fajar kenn muuru la saan guddi lañ la muur yóbbu la ci néeg te góor gi la takk mu jël la xam li ci sa biir xam li ci sa biti xam lu kenn gisut ci yow lu dul say waajur yàlla gëj a téye sanga la ah man dama yaakaar ni góor googu bu xamee li ci yow yëpp te jigéen avenir am gàtt na mhm. fi ñu lay waxee jànq bi mhm. xale bu jigéen bi jongama jeeg bi ak mère bi benn temps la dara doxu fa mhm. ma yaakaar ne ki nga xam ne xam na sa lépp nga xam léppam boo leen génnee teg ko ci mbedd mi te sa avenir commencé gut ndax xale nga war nga amaati boroom kër war nga amaati doom te jigéen benn jigi jëkkër rek lay am bu yàlla weddee mu xaaraat keneen kon war nga caa rafetal ba waroo génn sa lépp ndax góor gu lay bëggaat it nag da koy sooraale est-ce que jàppoo ni tamit euh, hmm. lu lu fees la ci xolam waaw bu feesee ci xol da ngay dem ci sa yaay mu dencal la leen la leen la nga dem ci sa tante lañ nga dem sa mag nga séddale ko li ci des nga dencal ko sa bopp li ci des nga dencal ko sa bopp ni da ngay am loo xam ne yaa koy dencal sa bopp mhm. dégg su ma ko waxee nag day jaaxal ñu bari góor warta dóore mhm. góor warta yuuxu ah, jigéen waaw ma ne góor warta dóor warta yuuxu jigéen waaye déedéet famille famille moo bari ci sëy yi niñ koy sëy yi eh, amatul val amatul valoriser wala wala nga ne yi nag mama nag nit ñi ñu ngi fi di sëy de saagante ndey yi moo bari jabar ngay saaga muy saaga ngeen saagante ay ndey di dóorante guddi jot ngeen ne ci mbedd mi ba yenn heure wala ngay topp sa jëkkër jigéenu kër dafa am mhm. bu ñu la takkee ngir njaboot mhm. nee naa la fi ne amatul kuy mën a dund Sénégal metti na jamono metti na ngoro ñetti fan ñetti ngoro yu njëkk yi rek a neex mhm. sëy bi weer bu njëkk la te léegi matatul weer dix jours la léegi bu njëkk ba six mois ngay seetu un sa jëkkër di la nabb nabbe waaye léegi une semaine rek la lay nabb nabbe jota amut a amut a xale yee bari te rafet da ngay mën a sëy rek muñ xale yi juddu 2000 boo leen xoolee da ngay yuuxu da ngay jommi. Mm-hmm. màgg gi gaaw na dañuy dugg ci sëy mm-hmm. ñooy gis nit néew ni la yaay kii laa bëgg boo ma ko mayut. Mm-hmm. mooy sama suwaa bu njëkk ba sa yaay da daan dem wala sa baab bàjjan dem wala sa maam dem wala sa nijaay tànnale la ñëw indil la nga takk téye. léegi yow yaay wutali sa bopp. ngeen miinante. nga ni boo ma ko wutalu ma wuti lii laa bëgg bëgguma lii ñu bàyyi la ak li nga bëgg. bu njëkk ba doom yaay topp waajur yi léegi waajur yi ñooy topp doom yi. Mhm. kon il faut que mu am lu leen sécuriser. dëgg mooy ñu delluwaat ci kilifa yi. xale yi mhm. nañu am kilifa. Mhm. di tàggu seeni kilifa. man dama bëgg boo toogee ci réseaux sociaux di nettali nga nettali li nga muñ. pour keneen mën caa jàngatee pour muñ. waaye bëgguma kuy xaawi xaawi baaxul. sama jëkkër dóor na ma sama jëkkër def na ma lii dafa am yenn moo yoo xam ne. mën nga ko wax feneen mhm. foo xam ne dinañ la ci jox xalaat waaye daal man dama ragal. nga ne ñu bàyyi mënat ya nañ bàyyi mënat ya xiir yi. jaaykatu mënat yi bu ñu la déggee ni am problème. ah bu ñu amee problème yi ñu xam ñoo ko teg seen bopp ne na xam naa xale yi dootuñu jënd mënat moom. ndax mënat yi mooy indi dóore bi ponkalum góor nga tiit ñaar loxoom takk di caw naan caw xiir <laughs> ma jommi sax man nañ góorgóorluwaat daal ñu sëy. incha nañu sëy ñu mhm. góorgóorlu. Mhm. ñu def effort. Mhm. nit sëy naag jëkkëram. fukki juróomi at yi rek la dund bànneexu sëy yeneen juróomi at yëpp day boole togg yàq raxas bale uuf njaboot gi mu ko yàlla jox mu tëdd ba guddi jëkkëram du ko mënal dara ba fajar mu jógaat di ree di kaf di segg kafe gi di togg di defal ndikki di joxe teraanga di def lépp te kenn du xam li mu nekkee bu ko naree jooy day dem ba ci yaayam mu jooy ko yaayam seetal ko ciy pexe mbaa mu dem ba ci goroom jooy ko goroom seetal ko ciy pexe sëy ba dem ba tas ñu continuer nekki xarit mayante ay cër sëy deret ju jaxasoo la sëy mbokk la nit sëy mën naa yàqu mbokk continuer sëy mën naa yàqu taraanga continuer sëy mën naa yàqu ñuy waxalante lu baax mais bu dee boo leen sëyee mu ñaaw rek ngeen ñaawal ko ba mu ñaaw na ñaaw na gën a ñaaw ba mu xewee ba léegi daa ñaaw lool nañ ko rafetal nag ba mu rafet àdduna mu solo dëgg la mais nan gisee Sénégal actuellement ah, xanaa ñaan fi jàmm rek xari yomb ñàkk xaalis bi ah. Ah. ñu ñaan rek xam nga réew nag bu amee nguur gu bees nag il faut ñu am temps mhm. pour liggéey ndax ay installation lay laajaat. Mhm. beneen liggéey lay laaj. Mhm. na xale yi dal. Mhm. te bàyyi ñu bàyyi te waxante ju ñaaw ji wax ju xajut ci siwo kenn du ko yëpp ci paan. tendance nañu campagne ba campagne jeex. ñiy falu falu nañ yàlla jox na leen nguur. ñu leen di ñaanal yàlla na oyof. amiin opposition dem na toog xaar. kon nañu eggali liggéey bi. gunge ñi fi yàlla teg. ñaanal leen yan bi oyof ñu liggéey. tàmbali suñu borom jàppale leen ñu egg ak sénégalais yi seet trouver solution jàppale sénégalais yi. te ñu bàyyi waxante bu ñaaw bi. Mhm. jiiñante bu ñaaw bi nit ami doom yori jabar yor askan. Mhm. nga koy wutal beneenu tur di ko wutal beneenu sat di ko wutal beneen doxalin yàlla nañ ci yàlla musal. amiin baat boo xam ne xale yu bari xamuñu ko woon. Mhm. fexe nañu ba xale yëpp bëgg koo xam. nan nan nan dimbali waaye. waaw ndax ami milliard suñuy njaboot am jàmm nu ko gënal. waaw am milliard te boo koy lekk di gëm ñàkk yor milliard te boo koy lekk di xoola ma ko gënal mm-hmm. nañu gorewaat jigéen ñi muñal seeni borom kër suturaal leen góor ñi tamit suturaal jigéen ñi bàyyi dóore bi bàyyi yuuxu bi bàyyi kurfañ yi bàyyi waxante lu ña bàyyi saalit gi mm-hmm. jigéen mooy yaay mm-hmm. effet yi amul fenn boo amee jabar xoolee ko ni yaay wala mag wala raq bi nga am yow mi yor góor jàppe ko sa neex na ci xol tamit nga tëdd ak sa jëkkër war a tëdd ak moom guddi mu solo ba jekk romb la dem dem baal baali tamit est que xamante wu leen woon ca baal ba bu dee baal ba ngeen takkante it il faut baal bi de moom loolu moom affaire famille la après ngeen lijjanti ko mais naturellement est-ce que loolu lu feeñ ci sëy daal nuyoo woon na lépp lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ca ngoro ga doon koo fayut man biir na ma ni ku góor ki suba suba suba bu bëggee jabar day dem takk jabar ndax la muy nekk ca sëy ba yëpp ak noonu mu mel ak jabar ji ala jabar jot ci moom am na ku jigéen ku mu arrangé da gis kuy muñ muñam gis koo xam nee na ko mën naa muñ li muy muñ tendance réew mi dafa toj léegi sëy sa dañ koy wujje ak tendance ndax toog bi ak euh, kuy takk yóbbu ma ceebal yaayam ma ceebal ndey dëkk bi moom ki takk yóbbu ak sol toog ci lal bi ñu puudar la nga sol mariage bi robb boobu jaral na leen lu nekk mais nañuy xool ci lu ñuy dugg waxtaane ko kilifa yi mhm. am ay kilifa surtout kilifa mhm. te bàyyi ku sëy mhm. kuy sëy du xaritoo ku sëyul wala nga xaritoo kuy ku sëyul te toog ca ndeyam ak baayam waaye sëyoo ba pare bëgg sa xaritoo kuy ku xam ne sëyul surtout maag ñaari tur yi ñuy wax ci réew mi. ñaar ñu tuddee jigéen ñi ak yi ñu tuddee góor ñi. ñaari tur yëpp dafee bari. ñaari tur yan ñiy sëy nanu ñaari tur yan. ah wax ji na leer ma. waaye ah, de doo ko boo xam ne loo wax ñu naan dañu war a lijjanti duñ ko lijjanti. Mm-hmm. di lijjanti ay lee te bañ lijjanti li nga xam ne moo fi ne. Mm-hmm. jigéen ñi wutal nañ leen turu góor. tuddee leen xaw ma lan xaw ma waa góor ñi ñu tuddee leen beneen tur yooyu yëpp nañ ko dindi ci réew mi te waxtaan ci dajale waxtaan xale yi waxtaan bàyyi. mais sa loolu yomb pour ñu génn non non loolu sax am na ñoo xam ni ngi leen koy waxal te amut. dëgg la ndax mm-hmm. baat bu ñaaw la rek. baat bu ñaaw la rek. bu ñu bëgg a génne rek taqal ko nit ndax fu ne Sénégal dañuy xool as gor fexe ba nga am guwaat te guwaat du sa yëf. Mm-hmm. fexe ba nga am estomac te estomac du sa yëf. Mm-hmm. fexe laa wax wax ju ñaaw ba nga am cancer te cancer du sa yëf. man li may wax ne ku ma matul xarit doo ma mat nawle. dëgg la merci beaucoup wasalaam maa ngi jéggalu ñëpp di ñaanal ñëpp. am eh, eh, rek te eh. dëkk ci réew mi te am ak ñëpp jàmm tey doomi réew mi fii mu nekk réewum senegal la dëkk njëgab Europe gëm dëkkul sax bu fa demee day génn moom du nitu tëjukat nitu génn la day génn taxaw ak nit ñi. saa boobu teg nit bu nga gisoon ko problème la quoi mais léegi. fi mu ne nii day soulagé wu day soulagé day doxantu wu day soulagé wu. day soulagé wu mémoire rek la am comme ñëpp. mais luy problème la ko yàlla defal jàmm. sàmm ko aar ko muccal ko ci barke yonent bi. amiin amiin amiin lépp lu ko yàlla jox. amiin.